ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape dina fa jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fou ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci dina neex te dina yëngu jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci santam tey lundi 28 ju juin 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi ma ci ànd ak Lamine sekk borom Loro. Thiès Sagata Lamine Samba nee na ak fan ak ak Gàmbi. la moo tax mu ne ak Gàmbi moom. Ah, bëgg Gàmbi rek moom mu bëgg Gàmbi moo tax bi mu ne ma ak Gàmbi ma ne ko mu ne ma Lamine borom Gàmbi ma ne ko Lamine borom Gàmbi. yéen ñaar daa xamante ngeen. xamante nañ. Lamine ak Jamaïcain waaw. kooku moom moom mun nañ ko bàyyi noonu rek. Gambien la moom. gàttaayam. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee di nuyu waa Vice FM ba ca Gambie Mbirkelane FM ci Saloum di jëmoo ak Babacar Sarr ñu ngi leen nuyu bu baax a di leen ziare di nuyu seen i auditeurs di nuyu waa Gambie yëpp suñu père Edi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm ak wér di ko ñaanal tamit suñu père Ndongo Cissé ak ki nga xamante ne moom mooy Abdou Darame. am na solo Lamine ñu ubbee ak journal bu les arènes. mu daal di ñëw ak ñun ci xew-xew bi nga xamante ne moom mooy xew ci weekend bi nit ñi man di làmb ah. nit ñi kontaan ci làmb ndax gis nañu loo xamante ne nii lu ñu gëjoon a gis la lu ñu namoon la ci wàllu làmb muy mm-hmm. spectacle muy cosaan ak aada mm-hmm. waaye ci fair play Sa Thiès bëri ak Moussa Ndoye ci anam goo xamante ne nii Lamine ci anam la boo xamante ne nii dina yóbbu Sa Thiès bu sore sore sore waaw comme ni nga ko waxee rek les arènes ñëw na ci filmu combat bi ni nga xamante ne Moussa Ndoye ak Sa Thiès arbitre na ba ne ko Sa Thiès ba ni ko Sa Thiès di daane moo tax mu jàpp ni daal moom dañ koo piégé ba pare da enfoncé ko ci une minute 37 secondes moo tax Sa mu mel ni daal instant bi ñëwaat na ci li nga xamante ne moom mooy yoonam yoonam bi nga xamante ne moom mooy yoon bi ko yóbbu fële ca couronne ba maanaam voie royale bi yaakaar naa ne nekk na ci yoon boo xamante ne nii Lamine tegu woon na ci. Mm-hmm. digganteem ak Boy Niang moo taxoon mu wàccoon yoon wa. waaye nag fi mu toll nii comme daan na Moussa Ndoye teguwaat na ci yoon bi. ñu koy ñaanal bonne continuation Moussa Ndoye itamit mu gën a entraîné waat. Mm-hmm. gën a liggéeyaat te xam ni moom la doon dajeel. Mm-hmm. ki ko daan war na koo daan. waaw ki ko daan war na koo daan moom tamit comme waroon naa mën a daan ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès ak lu mën a xew làmb la sport la ak lu mën a xew combat bi kenn xaaru ci woon muy muy nul. combat la boo xamante ni ñëpp dañoo jàppoon ne combat bu gaaw la man yaakaaroon ne sax yaakaaroon naa ne sax dina gën a gaawee noonu waaye Sa Thiès mu mel ni rek la rek mu ñëw dal ci kaw ay adversaire am bi pas déglu na moom moo ko dem jëlee ah. mu bëre ci biir bëre mu daan ko ñu leen di mu koy félicité di encouragé Moussa Ndoye waaye dafa mel ni Moussa moom am na lu ko naqari ci combat ba. am na lu ko naqari Lamine li ko naqari du dara ludul dafa jàpp ni CNG bi seen jëm bopp Sa Thiès la ñu faral te loolu nëbbuwul woon. waaw moom moo wax loolu daal nee na loolu lu leer naa ngi naa la gis na fa daal ay mbir yoo xamante ne métti woon na ko trop trop trop trop moom Moussa Ndoye ci affaire cummikaay yeeg ñu yee ci topp yëpp waaye moom daal jàpp na ni CNG dafa nekkoon ci ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès waaye nag yaakaaruma loolu. yaakaaruma loolu yaakaaruma ne CNG moom dinañ doxalee noonu mbër rek bu daanoo ndeysaan fii nii xolam du neex moo tax bu waxee rek mën na wax erreur Moussa Ndoye ku ko xam xam ko ci yar xam ko ci teggin waaye nag loolu mu wax moom yaakaaruma ne noonu la demee woon ak lu mën a xew dinañ dem waxtaan ak moom ci micro Lutte ñu waxtaan ci combat bi waxtaan ci détails yi nga xamante ne xewoon na ci làmb yi waaye daal ñu ngi koy encouragé bu baax a baax. ñu koy encouragé détails yi day xaw a bari waaye na xam ni champion la doon bëril comme ni mu nekkee champion waaye ca bés boobu amoon na leneen loo xamante ne ni xewoon na fa mu amoon benn retour boo xamante ni am na ku ko doon signé mu Issa Pouye waaye nag bi mu ñëwee Lamine retour ba dafa mujj échec ci digganteem ak ki nga xamante moom mooy Alioune Seye numéro 2 par KO. par moom Issa ba mu toogee huit ans yoo xamante ne bëriwul mu gëjoon a bëri le 2 juin 2013 digganteem ak Rong Balax boobu ak léegi daal bëriwaatul woon ñu doon xaaram mu ñëw signé retouram ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye numéro 2 waa Caaro yëpp génn ëmb ko 100 pour cent Caaro bi waaye nag dafa ñëw perte ci combat bi ci kanam ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye numéro 2 par KO. doy na yaakaaroon nga ni naa jeexee ci KO. ah yaakaaruma ko nag ci bëri laa gënoon a xaar bëri laa gënoon a xaar ci combat bi mais problème stratégie moo tax sax mu jël coup bi moom isaapu yu problème manque de stratégie ak per repère parce que huit ans boo ko toogee wàccoo ci làmb ji la même booy contact sax sa kër yaakaar naa ni ak biir géewu làmb ji du benn. dafa bëggoon a def lu mu mënul exemple kenn xamu ko ci xeex. dóor dóor dóor dóor mu bëggoon a ñëw nag pour pour pour pour maanaam pour corriger nit ñi ci li ñuy wax mënul xeex mu ñëw xeex boobu moo ko juumloo waaye waroon naa mën a ñëw mbapat ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye 2 ndax bu bu woowoon ci mbapat Alioune Seye 2 doo ko ci mbapat bi. nekk na ay champion yoo xamante ne ni ay ndaanaanu làmb lañu waaye nag Lamine leneen li nga xamante ne ni mi ngi ci biir journal bi ginnaaw bi mu fësalee mbër yi nga xamante ne ni ñoo daan ak ñoo daan fësal na la doon kin ki tëggoon làmb ji di Gaston Mbengue ndax te ku ne xam na ni combat bi liggéeyu ci ak waa Beuz Pro maanaam seen affiche deful pay per view bi ñeneen ñoo def pay per view bi am na nag ay explication yoo xamante ne ni ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Abou Ndour pay per view n'a pas travaillé avec buzz waaye nag loolu moom li ko waral lu simple la rek ñàkk juboo ci terme contrat ne tey man jour combat bi dañ ma woo woo woo ba tas. waaw di sabote genre mel ni ñun ñun ñoo ñoo ñoo ñoo gérer woon pay per bi ñu ci indi ay leeral rek que ni pay per bi ñun bii passé waa Buzz Pro assuré wuñu ko woon maanaam liggéey wuñu woon ak ki nga xamante ne moom mooy Gaston ndax ñàkk déggoo amoon na ci terme contrat bi waaye nag liggéey na ak ñeneen ñuy ñaanal ñooñu rek beneen yoon wala boog ñu ñu ñoom ñu réussir li nga xamante ne moom mooy seen liggéey waa Boys Pro bu ne signé nañ ko ak promoteur bu ko am na ay événement yu bare bare bare yu leen di xaar ñu ndax combat royal bi seen affiche point com lay dawe waaye nag beneen combat bi nga xamante ne tey yàggatul dara mu war a dox ci diggante Siteu ak Papa Sow tamit da ko xaar ci seen affiche point foofu lay dawee ak lu mën a xew daal dañuy des ci journal bi Lac de Guiers numéro dafa mel ni ñëwoon na fan su Moussa Ndoye dafa mel ni kontaanuñu ci la. kontaanuñu ci moom parce que nag Lamine ah, noonu la adversaire heure boo ko amee ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo sës ci sa adversaire bu ñu ñëwee doo leen may jàmm ci biir bi. Mm. te loolu dal na nag ki nga xamante moom mooy Lac de Guiers numéro ak waa Caa ak waa ñi nga ñooy waa Yaraax. waaw loolu nañ ko fa daal waaye nag lu ñu def lu dul yooxoo ko yaakaar naa ni moom defuñu la ak lu mën a xew yuuxoo nañ ko journal bi nag moom lépp làmb la koy def comme journalu sunu làmb Omar Yob moo tax foog ñu ko daal dem ci nga xamante ne moom mooy journalu euh, sunu làmb ama neex Lamine ñu ñuy yëgal ni ginnaaw bi mu demee États-Unis ngir waajal digganteem ak Lac Rose le 22 août ñibbisi na nag ci diwaanu ndakaaru ngir gën a yokk cere dolli ñeex ngir gën a yokk cere dolli ñeex moom am ama neex bi ñu waaye suba la korité wala ginnaaw suba la korité la demoon kon yaakaar naa ne def na fa un mois ñibbisi na fi nga xamante ne moom mooy Sénégal pour yokk cere dolli ñeex xëy na dafa bëgg ñëw yëkki du nii dugg ci àll bi def contact loolu moo waral mu ñibbisi looloo waral mu ñibbisi Lamine waaye ba tey journal ba suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci combat Moussa Ndoye ak Sa Thiès ndaxte combat la boo xamante ne nii dina bëri ay sites yu koy tiitaree ak ay journaux yoo xamante ne dinañ ci def ay article ndax bëre ba ndax gaawaay ba waaye ndax jom bi ak fulla ak fayda bi ñaari xale yi wane. Hmm. ndax bëri nañu bëri ndaw mu ne Sa Thiès na li nga xamante ne moom mooy force am ci kaw Moussa Ndoye Sa Thiès imposé na li nga xamante ne moom mooy force am ci kaw Moussa Ndoye ba pare relancé li nga xamante ne moom mooy carrière am journal bi wan ñu ko film combat bi rek ba ni ko Moussa Ndoye di jëlee ba ni ko Sa di remplacé wër ko ndombo daan ko waaye Sa Thiès moom ba ko daanee nag dafa mel ni nag instant bi am na loo xamante ne yéen a yàbbi ci victoire Omar Diop. yéen a ca yàbbi ndax Lamine nee na combat bi bu ci ñàkkoon. lu ne mun naa xew munoon nañ ci xaaru ne. waaw ndax ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 nee na sonn na ak ay appelam waaye nag leneen la nga xamante ni moom Sa Thiès jàpp na ni loolu gën na koo fas jom mooy rangooñi papaam. rangooñi papaam yi tuuri ci combat. waaw waaw waaw ndeysaan ko doon gunge nga dem ba yàlla def nga doon man ba mënatoo. maanaam maanaam manqué na Sa Thiès ci combat bi xëy na loolu moo moo moo moo ko jooyloo ndax kombaam ak Boy Niang ma nga woon ci saat ba combat waaw waaw combat am yëpp kay mi ngi ci géew bi bu demee nag boo doon man ba mënatoo yàlla na ko yàlla may wér bu baax a baax a baax a baax a baax ba mu mënaat li nga xamante mënoon na ko wala ba mu mën a ñëwaat di leen gunge képp ku nga xamante rek maanaam doomu aadama nga daal yàlla yàlla defal wér defal la jàmm. est que loolu taxul sax Sa Thiès xaw a taxaw tuuti ci géew bi. waaw loolu yëpp mën na koo bëre wala parce que booy xool bu ni lu ne waaw ba tey comme ni mu ko waxee woon ci journal bi bu les moom Moussa Ndoye noonu la ko waxaatee ci suñu làmb ndaxte jàpp na ni combat bi moom dafa jàpp ni moom moo nekkoon seul contre tous moom kase la woon pour ñëpp di ko sot waaw moo nekkoon seul contre tous moom Moussa Ndoye waaye ba léegi rek comme ni ma ko waxee woon rek maanaam instant yaramam moo tàng moo tax mu waxee noonu peut-être loolu sax réaction à chaud woon waaye ak lu mën a xew peut-être mën naa am fii ak suba wala ginnaaw suba bu ñu ko laajee mu rectifier na li mu wax daal moom nee na xeex nañ ko ci combat bi gis na loolu mu ngi doxoon nag ci diggante CNG ak organisateur yi. CNG ak organisateur bi yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni Lamine comme li nga ko waxee boo demee ba tàlloo ko sa micro même Sourou Fall tamit noonu la ko waxee kii journal bi nga xamante ne moom mooy journal sunu lam Sourou xam na ne moom mooy manager am nee na loolu am la nee am la waaye Lamine ba tey ci suñu làmb mu daal di fësal nag ko Nicolas le promoteur des grands événements mu war a tëgg nag la combat royal pour vingt cinq décembre incha allah waaye balaa boobu Lamine ñu ngi ñuy xamal que ni am na benn face to face bu ñu bëggoon a waajal wala bu ñuy waajal samedi prochain fi mu toll nii Luc Nicolas ak stafam ñu ngi ci diwaanu Gambie ngir waajal. yaakaar naa ne sax ñibbi nañ ndax boo xool vendredi ba léegi ñoom ñu ngi woon fële nga xamante ne moom moo di Gambie moom Luc Nicolas ak ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy stafam ñu dem waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy ministre des bi gisee nañ waxtaan ak ki nga xamante ne moom la ñu dénk lépp luy luy sport parce que waaye dañ am keneen koo xamante moom la ñuy dénk sport bi yëpp maanaam ministre bi kese du sañ nga décider foofu ñoom ñëpp Luc Nicolaï gisee na ak ñoom àndoon na ci ak ki nga tamit moom mooy Moustapha Guèye ak ki nga xamante ne moom mooy Beuz Ibrahima Faye Beuz waaye ak lu mën a xew samedi prochain daal la wax ni moom mooy face to face bi Luc Nicolaï daal mi ngi waajal gis na tamit président fédération bi di Thiam yaakaar naa ne lii innovation la tamit ndax Gambie ak Sénégal benn la bu ñu demee ba ñoom mënut mënatoo xàmmee sénégalais bi ak gambien bi kon lii lu nice la lu rafet la bu ñu jëlee làmb di ko décentraliser. Hmm. comme tamit ndax fii face fes face yi mënut a yegg. Hmm. te ñee boo demee dinañ ko yóbbu ci sat bu mag ba pare mu nekk entrée payant yaakaar naa ni innovation la. innovation bu am am am solo yaakaar naa ne stade Bakau boobu bu ñu fa yóbbee ñaari moom yóbbu fa benn waykat bu am doole danañ ko feesal. waaw loolu loolu jar naa jar naa loolu jar naa def. loolu jar naa def te kon na ko def ndaxte affaire la boo xamante ne affaire bu garaaw la Franc yi tamit na pare na pour bëre ak Sa Thiès mais. mais waaw bu fekkee amateur yi daal bëgg nañ combat boobu moom Franc nee na loolu lu war a mën a nekk la pare na pour jëflante ak ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès waaye nee na la mu waxoon démb ak bërëb démb moom jógu ci te mooy ki nga xamante ne moom moo di moom moo di moom moo di. Eumeu seen la soxla ndax da koo bëgg a wane waaye nag bu fekkee Eumeu seen mënul nekk tamit nee na nañ ko jox Lac de Guiers ndax buñ ko ko joxee nil du am ci boobule combat. am na solo waaye Lamine Boy Kaïré moom mooy yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci combat bi war a dox ci diggante Mbaye Gouye Gui ak Mame Balla la ndax combat la boo xamante ne ñaari xale yi Lamine sonn yàgg nañu ci rang bi te faaw ñu dekkale ko kenn dem kenn taxaw kenn dem kenn dem kenn waaye ak lu mën a xew daal combat bu extraordinaire la ki nga xamante ne moom mooy Boy Kayra di xaar ci diggante mbay guy gi ak Mame la mu war a am dimanche bi incha allahu rabbi fële ci stade Iba Mar Diop ak ki nga xamante ne moom mooy Assane Bawal production ñuy jox ñëpp rendez-vous foofu noonu waaye nag ca même jour ba tamit ki nga xamante ne moom mooy Dieye dina tëgg fële ci arène nationale Gris 2 Reug lu ko jiitu Sa Mbaye dina ñëw le 3 juillet bi incha allahu rabbi diggante général bu fas ak ki nga xamante ne moom mooy qualifié numéro 2 waaye fële la koy defee ci arène national ba sa ba Iba Mar Diop Mbaye Yékini nar faa tëgg combat ndongolo ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Niang. Ninki Nanka ak Cheikh ak ndongolo yaakaar naa ne ko ay combat la yoo xamante ne ni ay combat yi neex la Lamine ci biir week-end nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm. ñu fekke ko ak jàmm. non violence. xale yi toog ci jàmm bëri ci jàmm ndaxte nag Lamine soxla nañu jàmm lool. yàlla nañu yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp incha allah rabbi Omar Diop mu mel noonu la demee ñu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp waaye mën a nekk sa àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëgge di leen jaare di nuyu waa xew-xewu làmb ji nag di nuyu waa groupe bu yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Cheikh Bass Tutuyaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osodi ñu ngi koy nuyu bu baax baax di ko ziare di nuyu waa Gambie yëpp waa Baye Parfum Gambie ñu leen di bëgg bu baax a baax a baax di nuyu waa Baye Parfum Nord Foire waa Baye Parfum Kër saar ñoom Pape Papi Thiandoum ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit nga xamante ne moom El Hadj waaye nag du ma fàtte ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp commentaire yi di bëggee saa su nekk ñoom Abdou Lahat bu xarañ loolu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Tigre Noir Seydina Aline borom jaas yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bëggee lu bëree bare bare bare bare di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy di nuyu waa top 5 fitness top 5 musculation postu caaroy terrain Ndiayeen ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di nuyu ndoore Yoro Kanté Bilbao Cheikh Bass Kër Massar Khatab Diouf di nuy jàllo jibi ñu ngi nuyu Lapsoli Guèye Alioune Mbengue Momu Ñaan Zo Fresh euh, Zo Fresh nu ñu koy tuddee Zo mii di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Fam Kaasa Ndiaye Njaga Fay ñu ngi koy nuyu di nuy tamit ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Diop Pape Cissé doomu day mag ma lamen Madi Madi ñu ngi koy nuy di nuyu Ousmane Ba Serigne Ndiaye Lufa Xarañ Lo Boubacar Silam ñu ngi koy nuyu Moussa Cissé Ibrahima Amin Diop bëggee nañ la bu baax a baax di nuyu Jibi Ba Seydina Aline borom jaas ji Marlama Cissé Belle Vision Fat Seck borom Papa Lamine Niass ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Bada Diop Ousseyn Ose Ose di nuyu ñëpp daal ak lu mën a xew bëgg nañ ñëpp di nuyu Liiru Jaan borom États-Unis doomu Adja gas di nuyu tamit Madeleine Diagne di nuyu jari jàmme ak ki nga xamante ne moom mooy aji faatu ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziare di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène junior mi ta ndaw ñi ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam numéro 2 Bombardier dina fa jàkkaarloo ak Pape Yekini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu